أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا عباد الله اوصيكم ونفسي المقصره المذنبه بالتقوى الله بالتقوى الله عز وجل جعلنا الله واياكم من المتقين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ixwatal iman fa ayu muqaddima wa kayfa yabda'u alhadis man arada alkalam am man la tuhsa fadailuh ولا تعد سمائله الذي وصفه الله تعالى بالرسالة فقال محمد رسول الله وناداه بالندو- بالنبوة فقال يا أيها النبي وشرفه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده وشهد له بالقيام بالقيام بالدعوة فقال أنه لما قام عبد الله يدعو mbokk jullit yi suñu xutba tey mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ne lan moo war a nekk introduction bi fa ayu muqaddima mu ne wa kayfa yabda'u alhadis ku mel ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttali ko jaamu yàlla yi fan ngay tàmbalee sa waxtaan fan nga rog ko war a tàmbalee ci waa ji góor gi kii di muhammad man araada al kalaam am man laa tuxsa fadailuhu ana kan moo mën a leeralal kii nga xam ne ay mayam ak ay ngëneelam kenn mënu koo takk kenn mënu koo wàññi ay ngëneelam kenn mënu koo wax ay jikkoom ak ay melokaanam weesu na kaw suuf dem na ba kaw asamaan yàlla tabaraka wa taala moo ko doon melal nan la mel wasafahu llahu taala bi risala yàlla melal ne kii maa ko yónni sama ndaw la ndax yàlla dina tànn ku matut ndax yàlla dina yónni ku manqué yàlla ne muhammadun rasulullah muhammad mii ñu ne ah mu ne maa ko yónni sama ndaw la rasulullah yonent yàlla la loolu donc doy na buur bu tol ne yàlla tànn ci mbindeef yi benn nit bu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kii maa ko yónni sama ndaw la loolu donc doy na nit ñi xam ne kon kii du ko ndaw wa naadaahu bi nubuwa fa qaala yaa ayuha nabi yàlla woo ko bëgg a xamal doomu aadama yi kii ngeen di dégg di muhammad ñu ne ah mu ne ab yonent la sama yonent la yemul ci maa ko yónni waaye sama yonent la maa wax ak moom lim leen indil man maa ko jox lim leen wax maa ko wax wa sharafahu bil ubudiyya yàlla màggal ko teddal ko ne ab jaamam la mu ne subhaana allazi asra bi abdihi ñaar nit ñi dañ ko war a bàyyi xel nga nekk jaamu bi yàlla ak yàlla nekk sa boroom dafa amoon benn buur bu tudd Siddik Suley Njaay ci Séné ci àddina bi fii ci Sénégal dafa am benn buur bu xëy rek xanaa buur bi moo tuddoon noonu mu xëy rek jaamam dee ñu ne ko yow de sa jaam bi dee na mu ne man sama jaam de dee ñu ne waaw mu ne ku ko rey gars yi ne ko yàllaa ko rey mu ne yàlla di rey sama jaam ñu ne ko ah mu ne xoolal leen ma jaamu yàlla fu mu nekk ma fayu gaa yi wër dëkk bi sëriñ buñ ñëw imaam buñ ñëw ne ko buur bi moo yónnee nee na dafa jaamam dafa dee dafa bëgg fayu ci jaamam jaamu bi yàlla comme yàllaa rey jaamam dafa bëgg fayu léegi yow ndax jaamu yàlla nga kooku ne eh man damay jiite jàkka rek man du ma jaamu yàlla dem leen su ñëwee ci sëriñ daara bi mu ne man damay jàngale alxuraan rek waaye man du ma jaamu yàlla allahu akbar ñu takk fas yi di wër di wër suba ba ngoon ñu yegsi ci benn waay ñu ne ko buur bee ñu yónni mu ne lu mu wax ñu ne ko jaamu yàlla lay wër jaamu yàlla lay wër mu ne ah man de xaw ma ndax yàlla nangu na ko waaye man moom laa xaw ma nag ndax nangu na ko man de jaamam laa ñu ne ko déedéet parce que boo waxee loolu suñ demee buur bi dalay rey mu ne xanaa déglu leen li ma wax maanaam xissa bi may nettali benn mbir rek moo ma ci yitteel mooy yonent yàlla Muhammad yàlla moo ne kii sama jaam la yow nga ne jaamu yàlla laa dafa yomb waaye yàlla ci boppam jalla jalaalu reconnaître ne kii sama jaam la looloo jafe ñun ñëpp nangu nañ ay jaamu yàlla lañ du loolu moo ñu indi juma ñun ñëpp biir ak biti ci kaw ak ci suuf góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp nangu nañ ay jaamu yàlla lañ waaw mais wax ji mooy est-ce que yàlla nangul nañu sunub jaam Seydina Muhammad nag yàllaa ko nangul jaamam yàlla moo ne subhaana allazi asra bi abdihi sell ñeel na yàlla mi rañaane ab jaamam kon yàlla nangul na ko ak jaam moo tax moom yonent bi tur boobu la gënoon bëgg ci tur yi mooy jaamu bi yàlla tur boobu la gënoon bëgg moo tax bi yahud yi ak nasaraan yi bi yenn jullit yi ñëw ci moom di ko bëgg a jay naan ko anta sayyiduna wabnu sayyidina mu ne leen taxaw leen ñu taxaw mu ne leen laa tatruuni kama atarat nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh bu leen ma jay ni yahud ak nasaraan jaye isa ba ne doomu yàlla la man nag bu leen ma jay xam nga fii nga gis ku tiim sëriñam naan ko ñun sunu ñun say xaj lañu yow doo nit yow yàlla nga ah, di jayaate da ngay gis ku tiim kilifaam di ko jay yow romb nga malaaka yi romb nga doomu aadama yi romb nga mbindeef yi ku fi des yemuñu foofu sax da ngay dégg ñu ne diw moo sàkk yàlla kon yàlla mbindeef la dafa am ci Sénégal ku sàkk yàlla kooku sàkk yàlla ba pare dee sayyidina muhammad yàlla moo ko nangul ak jaamam wa sayda lahu bil qiyaami bi daawa yàlla moo seedeel yonent bi ne message bi ma ko joxoon na ko jottali doomu aadama yi jottali na ko woote bi daf cee taxaw woote bi ko yàlla joxoon ne ko message bi na ko ñëpp jot wa annahu lamma qaama abdullahi yad'u keroog ba jaamu yàlla bi taxawee gis nga beneen baat bu ko yàlla tuddee muy jaamam yàlla nee na jaamu yàlla bi dafa taxaw di woote ndax yàlla moo ko ne yaa ayuha rasul balligh bima unzila ilayk loolu moo tax ndeysaan même mu nekk ci sukuraatul mawt même mu nekk ci sukuraatul mawt moom muhammad muy diree ku ñëw di xool daaw bi fan la ko bàyyi mu ñëw fekk jàkka jaa ngi fees ñu ngi ko diri ba teg ko ci kanam mu xool leen abdullahi ibnu mas'ud nee na maa ra'ayna manzaran kaana yu'jibuna ka manzari rasul sallallahu alayhi wa sallam hiina nazara ilayna ka anna wajhu waraqatu sams sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko seedeel ni mission bi ma ko jox mottali na ko moom nuróowul ak ñi nga xam ne dañuy woote léeg-léeg am ku débordé ne la yaay yàlla déedéet moom amoon na cent vingt quatre mille sahaaba musu cee woote ba kenn débordé ne ko yaay yàlla zakkallahu aqla muhammad yàlla moo setal xelam ba gaa yi ne ko da ngaa dof ne ko ab dof la yàlla moo weddi ne maa dalla saahibukum wa maa xawa seen mbokk mi ni muhammad sànkwul bewul ya ñu ne ab dof la yàlla mu ne nuun wal qalami wa maa yasturuun maa anta bi nicmati rabbika bi majnuun yàlla mu ne maa ngi géñ ci xalima ak li muy bind yàlla nee ne maa ngi giñ ci sama xéewal yi maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun yow musoo dof ak ndof wi romb nga ko yow yaay saafara dof yi yàlla moo setal xelu muhammad wa zakka lisaana yàlla moo setal làmmiñam ne wa maa yantiqu anil hawa du wax lu ko neex kon yonent bi du nun kooku du wax lu mu neex lu mu wax yàllaa ko wax yàlla zakka kalaamu yàlla moo setal waxam ginnaaw làmmiñ bi mu ne in huwa illa wahyun yuuhaa lu mu leen wax maa ko wax looloo tax ku topp yàlla ku topp yonent bi topp nga yàlla loolu moo tax yàlla weddi nit ñi seen mbëggeel ci yonent bi ñun ñi suñu bëggee xam ndax ñun bëgg nañu yàlla wala bëgg nañu yonent bi ci ñun ku bëgg a xam ne yow jullit nga dëgg bëgg nga yàlla dëgg da ngay topp Muhammad qul in kuntum tuhibbuuna allah lu ngeen def mu ne fattabi'uni su fekkee da ngeen di woote ne ay jullit ngeen gëm ngeen yàlla mu ne topp leen Muhammad yàlla nee na bu ngeen toppee Muhammad yàlla nee na ma bëgg leen jéggal leen seen bakkaar te ay bakkaar nag man dong maa koy baale keneen du ko baale ko dul man wa zakka muallima yàlla dafa setal sax ki doon jàngal Muhammad ki doon indil Muhammad wax yu sax yàlla da koo setal yàlla yamul rek ci setal Muhammad dafa setal ba setal ki ko doon jàngal fa qaala allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la kooku mooy Jibril yàlla dafa setal ba setal malaaka bi ko doon indil wax yu wa zaka qalbahu yàlla setal xol bi ne ma kazzaba al fuaadu ma raa Muhammad day xolam lu mu leen nettali rek bu ngee boo ngeen xam ne dëgg la ndax loolu la gis loolu la ñu enregistré ci xol bi wa zakka basara yàlla setal bët yi ne ma zaagal basaru wa ma taxa sallallahu alayhi wa sallam boo nekkee gan nga ñëw ci kër ñu enteral ci salle bi nga toog waa ji dem di jëndi boisson wala mu dem di indi ndox wala mu dem di la indil añ wala reer sa bët yi day commencé di xool salle bi naan nii di xool ci kaw ak ci suuf di xool li tourner gauche à droite yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla woowee mala al ala benn place dong la xool xamul leneen li ko wër benn place dong moom nekk fa di xool ci kaw ak ci suuf moo tax yàlla mu ne ma kazzabal fuaadu ma raa sallallahu alayhi wa sallam bi mu àndee jibril jëm ci yàlla tabaraka wa taala dafa dem ba ci pays yu sàll sell ya fi nga xam ne kenn mënatul dem moo tax bu ñu bëggee tollale Muhammad ak nit yi àdduna dañuy sonal suñu bopp Muhammad mi ngi mel ni garabu guy gu sax ñaar téeméeri at ci digg àll benn yoo ñëw fa fajar ci kaw garab gi daa di tag ci kaw guy gi yoo bi daa ñëw tag ci kaw guy gi fajar bi timis di waaj a jot yoo bi bëgg a ñibbi fu mu jóge woon mu ne guy gi attention guy gi ne ko lu xew mu ne damaa bëgg nga dëgëral say reen balaa may naaw ngay buddeeku di daanu guy gi ne ko bi nga fiy tag ci fajar yëguma ko woon bi nga fiy tag yëguma ko woon Muhammad noonu la mel ak ñii di coow ñii di mbaw di xaj di di owowi Muhammad noonu la mel ak ñoom dafa dem ba kaw asamaan ànd ak Jibril Jibril ne ko mënatumaa dem man fii laa mën a yem te ci borom bi la jëmoon suñ ne Muhammad gis na yàlla gaa yi ne déedéet gisu yàlla parce que Moussa gisul woon yàlla du benn Moussa moo bëgg a gis yàlla yàlla moo bëgg a gis Muhammad du benn yaa ma bëgg a gis ak maa la bëgg a gis ndax benn la Moussa moo bëgg a gis yàlla moo ne yàlla dama laa bëgg a gis Muhammad yàllaa ko bëgg a gis préparer voyage bi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ilal masjidil aqsa yàlla boole koog malaaka bu tudd jibril mu escorté ko yàlla boole koog fas bu tudd alburaq fas bi dafa gaaw ba bët bi fu mu yem foofu la tànk bi di tegu ndax gaawaay mu julli ñaari ràkk ci kaaba gi jëm medinatul munawwar ñoo julli fara ñaari ràkka jibril ne ko fii boo jógee makka fii ngay ñëw fii ngay rañaan mu déparé medina dem masjidul aqsa mu dem ba masjidul aqsa yàlla dekkil mbooleem yonent yi mu jiite leen ñaari rakka alburaq ñëw mu naaw jëm kaw asamaan wuy ji yàlla kooku day sun morom kooku ñu koy tëkkaleeg ñii fii naka la ñuy jëlee yonent yàlla Muhammad di ko tëkkale parce que lan moo tax lan moo tax yahuud yi ak nasaraan yi yab yonent bi lan la parce que jullit yi la olof yi nee nañ bukki bu yabee ponkal ci doxin bala c'est parce que ñun la ñuy dégg ñuy traité suñu yonent parce que nit ku jàngul nit ku tekkiwul dara société bi xamoo ci dara tekkiwoo xamoo dërëm ci diine alphabet arabe yu leer sax mënoo ko jàng kooku mooy tiitul Muhammad waaye gis ngeen Muhammad ci yàlla moom yàlla xam na kii kan la ba mu àndeek Jibril ñu naaw asamaan yi juróom-ñaar asamaan par asamaan mu fay fekk yonent di romb mu fay fekk yonent di romb mu fay fekk yonent di romb ba mu yegg si asamaan yi jeex yonent yi jeex ñoom ñëpp mu romb leen ci kaw asamaan yi ba juróom-ñaari asamaan yi jeex Jibril ne ko man mënatumaa dem lu xew mu ne ko wama minna illa lahu maqaamum maalum amul kenn ci ñun mbindeef yi ñu nekk ci kaw asamaan fii lu dul ñun ku nekk ci ñun am nga foo war a yem man fii laa mën a yem mu ne ah léegi nu may def ba gis sama borom mu ne ko demal ci incenserie bële boo ci yéegee mu yóbbu la ci yàlla ah allahu akbar moo dem ba kaw asamaan dem ba ca yàlla jàkkaarloog moom naan ko attahiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله يلا نكو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ملاك يورن أجانس بي ne السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يلا نكو جل كو بودي مي nga def ko ci taaye mu bokk ci julli kooku la ñuy tëkkale fii ak doomu aadama yi nga xam ne dañuy lekk mbaxal netetu suul ak yéet moo dem ba foofu ñëwaat di war mbaam gis ngeen fi ko yàlla yóbbu ni mu kawee mu ñëwaat di war mbaam di lekk yu ñuul di lekk di naan ndox di lekk seel di lekk tàndarma di fóotal boppam yore ay bagaasam xëy dem marché fekk jaam bi di soq mu jël kuur gi dëbb ba loxo yi fut sallallahu alayhi wa sallam moom yonent boobu zakka axlaaqa yàlla dafa setal jikkoom ay melokaanam yëpp la yàlla setal yàlla ne ko wa innaka la ala xuluqin azim nit ñi fi ñu yem ci mbaax yow foofu nga tàmbalee mbaax bu leen téeméer da ngay baax baax ba téeméer yonent yàlla Muhammad téeméer la tàmbalee jëm kaw wa zakka ashaabu yàlla dafa setal ba setal ñi mu doon àndal sahabaam yi mu doon àndal yàlla da leen a setal wallazina maahu ashiddaau ala alkuffar waaye ruhamaau baynahum yàlla dafa setal yonent bi ba setal ay àndandoom yi ko wóoroon ñu tuddee leen rijaalun xawla rasul bu la neexee wala ñu tuddee leen ashaabul kiram sahabatul kiram laqad radiyallahu anil muminin is yubayiunaka tahta shajara yàlla nee na ñi waroon muhammad ñu ne ko ah mu ne dama leen a gërëm ñoom ñëpp ñoom ñëpp dama leen a gërëm yàlla yemul ci loolu saraha allahu lahu sadra yàlla yaatal dënnam bi yonti yàlla muhammad raxas nañ xol bi ñaari yoon xar nañ dënn bi génne wextan bi génne xol bi raxas ko dindi wextan bi soo gisee doomu aadama yi di mer mooy soo meree sa xol bi day fudd po wextan bi daa di fuur daa di laal xol bi nga gaari nga gën a mer nag gën a ngand yonti yàlla muhammad moom lu tax daawul mer lu dul suñu xottee xorma lislaam mooy dañoo raxas xol bi ñaari yoon moom mu nekkee ci xalimatu saadiya jibril fekk na ko ci àll ba jàpp ko xar dënn bi xotti ko raxas ko keroog bi ko yàlla di yónni muy am 40 ans raxas nañ xol bi moo tax yonent yàlla muhammad doo daawul mer saraxa allahu lahu sadra wa wadaa anhu wisra jafe-jafe yeeg bakkaar yeeg yëpp yàlla daal di ko koy teggil wa rafaa lahu zikra yàlla yëkkati turam ba àdduna bi yëpp tur Muhammad la ñuy gën a tudd amul keneen ñaata jàkk ñoo am Sénégal ndax xam ngeen lim bi waxuma jumaa de jàkka laa wax ñaata jàkk ñoo am Sénégal ndax xam ngeen lim bi jàkka ju nekk juróomi waxtu dinañ fa tudd turu Muhammad juróomi waxtu yooyu ci biir jàkka ji dinañ tudd turu Muhammad bu ñuy liqaam individu yi ñun individu yi nit ku nekk ñaati yoon ngay tudd turu Muhammad ci jour bi ñaari ràkk fajar ndax di nga tudd turu Muhammad wala doo ko tudd ñaari ràkk suba ndax di nga tudd turu Muhammad wala doo tudd ñeenta ngoog nga ñëw tisbaar ñaar avant ngay julli di nga tudd turu Muhammad ñeent tisbaar soo jullee ba pare ñaar siisa ngoog ñaata ngoog nga ñëw tàkkusaan ñeent avant ngay julli nga julli ñeent nga ñëw timis julli ñett julli ñaar nga ñëw gee ñaar julli gee ba pare julli waan ñaar dese fa witre rakka bu nekk di nga tudd turu Muhammad su la neexee bu la naqaree di nga joxoñ sa baaraam bi sooy taaya ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu des bu ngand bi nag bis bu ñu nee faatu nga ñu jëlee la ci morgue bi jëlee la ci kër gi yóbbu la ci morgue bi simmi la ba nga set sang la sang la yeew la génne la ci kanamu jàkka ji jullee la teg la ci oto yi yóbbu ba ci armeel yi gas ba mu xóot dugal la ci biir daal di delloo suuf si bu nit ñi ñibbi ñaari malaaka ñëw yëkkati la nga jóg toog ñu ne la maaza kunta taqulu ala haada al abdu muhammada muhammad mi nga doon dégg ñu ne waaw ñu ne loo doon wax ci moom bi nga nekkee ci àdduna kooku du suñu morom kooku raw nanu dañu war a langaamu ci moom rek texe jàpp ci moom texe li ñu yàlla wax ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee daal di jub waaye jël muhammad bu ko mu jël ginnaaw jël ay samba booy ak ay samba àllaar ñu kenn tekkiwul dara kenn xamut kenn xamul ñii ka bëgg a jël sax ay yonent ci Sénégal ut la leen ay yonent bëgg a jël ay kilifa teg ci kaw sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ixwatal iman yàlla tabaraka wa taala dafa yaatal dënnu muhammad yàlla teggil ko coono yak jafe-jafe yi yàlla yëkkati turam ba ci kaw maa waddaahu rabbuhu wa maa qala yàlla musu koo bàyyi musu koo mere wa jaala axiratuhu xayrun lahu min awlaahu yàlla sax def alaaxira gële mu jëm moom moo gën àdduna bi mu doon dund dund ndax yàlla nee na walal axiratu xayrun laka min al ula yow Muhammad mu ne waaw mu ne balaa ngay xam ne doo moroomu gaa yi alaaxira jot ñëpp sonn àddina bi yëpp ni nit ñi di toll li tàmbalee ci aadama ba ci ki mujjee dee ñoom ñëpp yàlla dekkil leen ci benn place ñaata nit lañ la tàmbalee ci aadama yàlla mu ne haza yawmul fasl jamaanaakum wal awwalin tey mooy bis bu ñuy tàqale dëgg ak fen yéen ñëpp dajale naa leen la tàmbalee ci aadama ba ci ki mujjee dee ñëpp sonn yàlla wàcce jant bi ba mu tiim nit ñi ñëpp sonn ñu daw dem ci yonent yàlla nuux ñu ne nuux ñaanal ñu sa borom mu yërëm ñu mu tàqali affaire bi metti na nuux ne mënuma ci dara ñu ne ko lu tax mu ne ko maa ne woon rabbi laa tazar alal ard min al kaafirina dayyaaran maa ne woon yàlla bul bàyyi kenn ci kaw suuf na ñëpp dee ñëpp dee loolu laay lijjanti tey li ñuy def mu ne dem leen ngeen xooli ibrahim ñu ñëw ci ibrahima mu ne dama musoon fen benn fen fen boobu laay lijjanti ñu ne ko yow lan nga musa fen mu ne dama àndoon ak sama jabar benn buur bu koo jàpp bu koo nangu mu ne ma kii sa lan la ma ne ko sama sœur la fen boobu laa bëgg a lijjanti pourtant sa jabar sa sœur la mu ne loolu laa bëgg a lijjanti tey taluma leen bàyyi leen ba loolu leer nu ñuy def mu ne dem leen ci Moussa ñu ñëw ci Moussa mu ne rayoon naa nit bakkaar boobu laay lijjanti dama fekkoon ñaar ñuy xeex benn israélien ak benn xibti ma leen di atte ma bëmax israélien bi mu daal di dee loolu laay lijjanti tey nu ñuy def mu ne dem leen ci Isa gaa yi ñëw ne Isa mu ne leen sama bopp laa tal ndax dañ doon wax man yàlla laa sama yaay yàlla la loolu lay lijjanti tey li ñuy def mu ne dem leen ci Muhammad bi gaa yi déparé di ñëw ba yegg si ñu wax ko jafe-jafe yi lan la ñu ne ko dañoo bëgg nga dem ci sa boroom nga ñaanal ñu ràmm mu ne ana laha maa ko yelloo maa ko moom yéen a ngi doog a ñëw nag mu bàyyi leen fi ñu taxaw mu ñëw ci kanam boroom bi sujjóot yàlla ne ko muhammad lan la mu ne ko dama bëgg nga ramm xeet wi ñu dugg aljanna yàlla mu ne ko irfa raasaka yëkkatil sa bopp tey du bisu sujjóot siggil irfa raasak yëkkatil sa bopp wasal tuuta laajal ma jox la allahu akbar moo tax yàlla mu ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda danaa la jox ëllëg yowmal xiyaam ba nga doyal sëkk allahu akbar loolu kan lañ ko wax fii kan lañ ko wax ci waa Sénégal kan lañ ko wax ci àddina bi kan lañ gis ci alquran yàlla ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kan la irfa rasaka yëkkatil sa bopp wasal tuta laajal ma jox la wasfa tusaffa rammul ma jox la caabi yi nga rammu mu ne yàlla ummati sallallahu alayhi wa sallam waxul ana Khadija de déglu leen waxul ana Khadija ana Aïcha ana Zaynab ana Umu Kalsum ana Useynu ana Asan ana Ali ana Babacar ana Umar ana Bilal waxul lool de dafa ne yàlla ummati sama xeet na ñëpp ñëw dugg aljanna aqulu ma tasmaun wa astagfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجده ضالا فهداه وفقيرا فأغناه ويتيما فآوى ولما خيره بين الدنيا وبين اللقاء مولاه قال والشوق يملأ فاه bal rafiqul a'la sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko fekk muy ku xamul dara jàngul yàlla def ko mu raw ñëpp te jàngul yàlla fekk ko muy ku amul dara nekk faqiir su ndekkee du añ su añee du reer yenn saa yi mu doon toog weer cin du tàkk këram sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana toog weer cin du tàkk këram lu muy lekk ndox ak tàndarma yenn saa yi sax da doon tëdd di nelaw xiif tere ko nelaw benn bis nelaw na ba sonn munta nelaw mu jóg boot ay loxoom topp mbedd Madina di wër mu jàdd ndeyjoor ak càmmoñ mu dajeeg Aboubacar Aboubacar lu xew ba nelawoo mu ne ko dama xiif yaa rasulallah pourtant heure boobu su bëggoon yàlla wàcceel ko man na wa salwa su bëggoon ñu wàcceel ko ay ginaar ak ay mis wi biir aljanna malaaka yi indi ko waaye day jàngal nit ñi àdduna day jàngal jullit ñi mooy royukaay bi mu xiif ba mun te nelaw ñu tourné mbedd moog Aboubacar ñu dajeeg Umar lu xew mu ne dama xiif ba mënumaa nelaw yonent bi ne leen kaay leen seeti abul ayub al ansaar yi abul ayub mooy ki yonent bi nekkoon këram keroog bu mu jógee màkka fi ñu ko dalaloon kooku mooy abul ayub al ansaar yi ci boromi alali Medina la bokkoon ci ñi gën a tabe ci Medina ci la bokkoon biñ ne bi ñu fëggee buntu kër abul ayub mu ubbi gis yonent bi ak ñaari xalifaam def leen a dalal rek daw jël paaka yonent bi ne ko moytul buy nàmp ak bu am doo bu ëmb moytul buy nàmpal ak bu ëmb ci fanweeri minute rey na ab tëng fees nañ ko lakk nañ ko la ca njëkk a yor ñor ñu ëmb ko indil yonent bi mu dagg benn suux def ci gémmiñam daan ne summa la tusalunna yawma izin anin naim jooy jooy yu métti Aboubacar ak Umar ne ko waaw du da ngaa xiifoon ñu indi la yàpp mu ne leen maa ngi giñ ci màggaayu yàlla ëllëg xéewal gi yàlla dafal leen yàlla dina leen ko laaj ngeen tëdd di nelaw xiif mun leen nelaw ngeen génn defu leen dara yàlla indil leen wërsëg yàpp wu ñor wu xonq cur bu tàng jër ñu indi leen ko léegi ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina leen ko laaj waaye lan moo yéeme mu dagg ci tuuti ci lu ñor li mu woo kenn ci waa kër abul ayub mu ne ko demal nga fëgg faatima nga jox ko ndax weer a ngi nii lekkul yàpp weer a ngi nii Fatima lekkul yàpp weer mbokk yi ñun ñu julli si jumaa ci biir ak ci biti ci kaw ak ci suuf góor ak jigéen kañ lañ gëj a lekk yàpp yonent yàlla Muhammad toog weer ci du tàkk këram mu toog weer njabootam duñ lekk yàpp te moo gën ci àdduna bi Fatima mooy sangu jigéenu àdduna yi moom moo jur ñaar ñi nga xam ne ñooy sangu ndawi aljanna sayyidu sababil aljanna seen yaay toog weer lekkul yàpp Fatima Zahra ki yonent bi doon wax qit'atun minni daggit la ci man ku ko kontaanloo kontaanloo ma ku ko merloo merloo ma kooku di toog weer lekkul yàpp ñun kañ lañ gëj a lekk yàpp est ce que ñu ngi sant xéewal yi ñu yàlla defal sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jàngal aduna moom mooy mbindeef mi yàlla gën a bëgg bi gën a màgg yàlla fekk ko mu nekk faxiir amul dara laa ilaha illallah fa aghnaahu yàlla doyloo ko def ko mu am koom ndax yàlla da koo may alal bu dee déedéet yàlla da koo may mu doylu mu doylu da daan tëdd ci tagar bu wow koŋ ba faar yi dereetal Omar ñëw di ko nuyu mu jóg yëkkati loxo yi di jox Omar Omar seen faar yaa ngi dereetal Omar ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam doo bàyyi ma woote ñu dem sunu kër yi ñu tegale mbàjj yi ñu ku nekk indi mbàjjam ñu tegaleel la ko ndax mu nooy nga ciy tëdd ndax gisoo Kisra yéeféer la mais ci ay mat la lay tëdd gisoo Qaysar yéeféer la ci mat la lay tëdd Om- yonent bi xool Umar ba ci yàgg mu ne yaa Umar Umar mu ne ko labbayka yaa rasulallah mu ne ko maali wali dunya ma ana illa ka raakibin istazalla tahta sajara summa qaama fa tarakaha yow Umar yaa Umar maali wali dunya Umar lan moo ma booleeg àdduna lan moo ma booleeg àdduna yow Umar man damaa mel ne woon ci àdduna koo xam ne dafa tukki si woon rek fekk garab dox ba sonn gis garab gu fiix mu toog di noppalu man loolu moom booleeg àdduna nekk fii di tëdd loolu indi wu ma fi Umar Umar bàyyil nii rek sunu mbir ëllëg alaaxira la du fii mbokk yi yàllaa ko fekk muy faxiir ku amul dara fa aghnaahu yàlla oomal ko yàlla fekk ko mu nekk yatiim baayam faatu depuis kañ ñaari weer ci biiru wéy juróom bu jigéen yonent yàlla muhammad gisul baayam yaayam nàmpalu ko yaayam yaru ko gisul papaam ñaari weer ci biiru yaayam papaam faatu ñu jur ko ñu yóbbu ko ci xalimatu saadiya nañ ko nàmpal mu bàyyi koo fa ñeenti weer ñeenti at yaayam faatu ñu yóbbu ko ci baayam maamam abdul muttalib mu faatu ñu yóbbu ko ci abu taalib mu faatu mu nekk jirim complètement yàlla ne ko ndax fekkuma la nga nekk jirim jirim mooy ku amul ndey amul bàyyi sësoo ci kenn yàlla mu ne fa aawaa ma aaral la man sama bopp keroog bi mu dundee ba war a génn àdduna wa lamma xayyarahu bayna dunya wa liqaa illah yàlla ne ko muhammad mu ne ko labbayka yaa rab mu ne ko danga damaa bëgg nga tànn ñaar ma bàyyi la ci àdduna nga dund ba doyal wala ma nga léegi léegi ma faat la nga ñëw ci man mu ne yàlla bal arrafiul ala yàlla tànn naa ñëw ci yow yàlla tànn loo ko ñaar addunaa ngi nii ma bàyyi la nga dund wala muhammad nga ñëw ci man mu ne yàlla tànn naa ñëw ci yow ñun tey bu ñu ne woon kan moo war a dee léegi léegi lu ñuy wax ku nekk da nga koy paasante moom ba ko yàlla tànnalee adduna ak dee ñëw ci moom moom daa tànn yàlla tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam ixwatal iman kii mooy Seyduna Muhammad kii la yàlla yónni ci ñun kii la ñu yàlla royloo kii la ñu yàlla xoolloo kii la ñu yàlla bëggloo kii la ñu yàlla topploo kii la ñu yàlla gëmloo amul keneen keneen ku la neex ay waxam bu la neexee nga taxa sànni mbalit li imam malik doon wax kullu lkalaami yuxas wa yurad illa saahibu hada alqabr waxu ku nekk bu ñu neexee ñu def ko musuwaar à jeter ba mu des Seydina Muhammad loolu tax imaamu Malik imaamu daaril xijri ni mu bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam imaam Malik daawul sol dàll biir Médine nee na man suuf suñu suul yonent bi duma ci dox di sol dàll tànku neen la daan def Médine da daan xëy toog ci jàkka ji di jàngale ne maay Malik maay Malik waa Sénégal nee nañ ci ngirum Malik lañ nekk waxuma la yonent yàlla Muhammad waaye Sénégal Malik ci boppam lañ njëkk a réere ba pare xamuñu koy Malik ba pare bëgg ne ñu ngi ci yonent yàlla Muhammad imam Malik moomu ñun lañ njëkk a réere balaa Seyduna Muhammad Malik moomu xool leen nu meloon ak yonent bi nee na man dëkk bu ñuy saaga yonent bi duma fa tukki ana laa uqimu bi baladin yusabbu fiha rasulullah fu ñuy saaga yonent bi duma fa tukki ñun fu ñuy dem tey fan la ñiy jël gaal yi fu ñu jëm ñi ñaan visa fu ñu jëm ana laa uqimu bi baladin yusabbu fiha rasulullah Malik daawul soldat la biir Médine teg nañ ko ci kaw mbaam di ko dóor ay yat bëgg mu weddi mbooloo mu ñu yegsi ñu ne ko weddil mu ne maay Malik ku ma xam maay Malik ku ma xamul maay Malik maay imaamu jàkka yonent bi maay jàngalekat jàkka yonent bi maay àttekat jàkka yonent bi anal Malik man arafani fa anal Malik wa man lam yaarifni fa anal Malik ku ma xam maay Malik ku ma xamul maay Malik maay jàkk ima jàkk yonent bi maay imaam bi maa koy jiite maay jàngale ci jàkk yonent bi fi mu doon toog maa fay toog wéeru fi mu doon wéeru benn bis foofu la wéeru di jàngale hadis yonent bi ndeke benn jiit mu ngi ci suufu tànkam jiit ñi muy jàngal jékki-jékki gis kanam gi di changer di génn ay couleur yu weex ak yu xonq ndeke jiit moo koy fet kanam ji di changé bi mu paree ñu ne ko waaw sëriñ bi tey lan moo la xew mu ne lan la ñu ne ko bi ñuy jàngal gis nañu sa kanam gi di changé ay yooni yoon ngay mel ni ku mer di bàyyiwaat lu xew mu ne de boobu benn jiit moo nekk ci sama suufu tànk bi di ma fett te rus naa dagg xadiisu yonent bi rus naa dagg xadiisu yonent bi fii da nga daan jullit yonent bi nee na mu ne la waay nga ne jullit yonent bi nee na mu ne waay waay góo waay waay dox dox bi waay xanaa xamoo diw nee na nga ne fii jullit yonent bi nee na mu ne non man gëmuma yooyu ñaata yoon lañ koy wax fii ab jullit yonent bi nee na Malik nee na man rus naa dagg hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw lan mooy sunu mbir mbokk jullit yi yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko suñu programme tey nag mooy fee ngeen gis baas bi nekk te ñu pavé ko ñu dër ko gars yi ba léegi nekk bàyyiwuñ pourtant waxoon nañ waa ji jox nañ ko ñaari kër de pour mu bàyyil ñu fii waaye léegi nee na jox nañ ko ñaari kër léegi pour terrain bi la waaye lim fi mool nii nii nii fondement bi nee na foog ñu fay ko ko mais jar na ko nañ ko ko fay. moo tax dootuñu dem ak moom ay tribunal di yéeg di wàcc ñaari yoon huissier ñëw na fi indil ñu koy nee na ñu fay ko fondement bi pourtant dañu ne woon fay nañ ko de jox nañ ko ñaari kër na bàyyi ak ñun mu ne waaw. mais léegi comme dañu bëgg a fitnaal rek parce que am na jàkka ji moo leen xatal dañu bëgg a fitnaal rek ñu ne léegi nañ ko fay ñu ne ñaata mu ne 500000. incha allah bu ñu paree yéen ñëpp nag laa ko wax 500000 yi na mat tey bu ñu paree 500000 yi na mat tey incha allah bu ñu paree ñun ñëpp. nañu yuqi lu ñu indi yëpp teg ko fii 500000 mat ñu jox ko ko ndax ñu jeex ñu bindal ñu kayit léegi ñun ñoo moom fii allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna jtinaaba allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an tarudduna ila dinika maradan jamila li ma wax léegi nag dañ koy jaayante incha allah dañ koy jaayante ak suñu borom ñun ñëpp toog fii ku nekk na nga ko jaayante bu ngeen ñibbiti dugaloo ci dara soo ci teg sa mbax ne sax teg ko ci parce que tey jouru jaayante la saxaaba yi dañoo jaayante woon ak yonent bi nañ jaayante tey ak jàkka ji ëllëg yowmal xiyaam bu ñu demee ci yàlla yàlla mu ne loo ma liggéeyal nga ne mu nga ne ko terrain boobu ñu doon xëccoog waa ji bu ko def jàkka bu ko def sa néeg joxe woon naa ci ñaar dërëm qumu ila salatikum yarhamukumullah